foofu noonu comme li président laaj ci li ñuy wax ci li ñuy jàpp moom léppam fii la fii la bàyyi ko fii la juddoo mbokkam yëpp fii la nguur gi fii la doole ji yëpp fii la même loo xam ne moo xam ne dañu koy falu nekk buur mooy bu fekkee ne ci ci nan laa ko mën a wax bu dee galon galon laa ko mën a wax wala leneen mais moom la ñuy wax komoto komoto boobu la ñuy falee buur komoto boobu komoto bu yooyu komoto boobu boobu njàmbur fii la nekk amul fenn ci ñaan fii la nekk komoto boobu fii la nekk komoto boobu daanaka par exemple su fekkente ne eh, mën a ak mën a ak kii ak kii buur ñun ñoo nekkoon ci famille buur bi ñu war a fal kenn am na famille yoo xam ne ñoom ñooy falu ñooñu famille yooyu ñooy falu mais bu bor setee dañuy laaj dañ leen laajal kan mooy buur ci ñii ci ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo ñooy famille bi kenn ci war a falu ci ñoom kan mooy buur bi da nga gis seen mag jóg kooku borom xam-xam la mu ne diw la yor na jël na komoto bi dem ci guddi kooku xam-xam lañ koy jëlee komoto boobu xaw ma naka laa ko mën a wax ci olof mais mooy lépp. pouvoir mooy pouvoir bi mooy pouvoir bi dafa am lan. mooy secret bi mooy pouvoir bi waaw boobu yore fii rek la am. waaw jàmbur fii la am. damay laaj tuuti Moussa sëñ Moussa. Euh, ci ni njàmbur tëddee dafa mel nii ñu xereñoon lañ dañu dañu sanc dëkk bi pare wërale ko yeneen dëkk yi euh, euh, soose ay guerrier nekk ci. pour aar royaume bi mais dama dé ci xam nga ndax Manchester Kilmintan bi mu defee coup d'état bi ba jël nguur gi ndax décision yi nit ñi wax na capital bi da ko respecté woon ba décision yi muy jël wala loi yi muy arrêté fokk day woo penc yooyu ñu dajewaat ci ancien njàmbur jëlee fa décision wala am loi bu ñu teg ne lii la wala am information wala lu mu bëgg a wax léppam daal daanaka décision yi gënoon bari njàmbur ni ne danaan war fasam yëgle ñu yëgle bés sangam dañuy jaje njàmbur mu joxe xibaar wala am décision yu mu jël wala ay atte yu ñuy def ndax loolu wér na wala wérul. waaw asalaamaaleykum man maa ngi leen di nuyu président fu nga laaj ma gis nga bu ñu jee falee. bu ñuy falee loolu. Eh, dëkk dëkk dëkk ñi nga xam ne ñi fi rey ñaari fii encore. Mm. mooy Kuntuwaata. Eh, Kupandu Socé boobu ngay wax ak Ndoumoussine Gueye ak am ak. Kunjur. Eh, waaw Kunjur ñoom dañu fiy daje. Kisaa waaw ak Kisaa dañu fiy daje toog ci la ci la ñuy ci la ci la ñuy di falu di fal kii kii buur parce que ñooñ mu ñooñu kese mënuñu jékki fal falu buur fekkee eh, eh, cosaan ñaan yi rois ñaan ñi nga xam ne ñi nga xam ne dëkk bu am na am nañ jiitu ko te ñoo jiitu yooyu teewuñ quoi mais fii lañ koy fale fii njàmbur fii lañ koy fale ci ci suñu maame suñu suñu suñu mag yi li ñuy waxee njàmbur fii lañ koy fale bien vrai que Ndumsur am na am na ay buur mais après seen buur yooyu tànk yi fii lañ koy fale après waaw comme li président laaj la li tontu rek noonu la rek kon maanaam daal ci gàttal daal décision yëpp fii lañ koy jëlee parce que moom fii la dëkk fii cosaan lépp lu mu am fii la ko bi mu amee fale tamit bu mu bu cee créé bi mu nekkoon fale tamit fii la doon aar fii la doon aar mu nekkee Ndungu Sine di kër di foofu ba mu am lu muy am yëpp mais fii la décision yëpp daanaka fii lañ koy jëlee comme li ko Lamine fii moo nekkoon capital te jëpp fii la jëpp yëpp daal même famille la même famille la lépp li nga xam ne dañ koy def daal dëkk bu ne am nañ fay représentant yoo xam ne comme ni mu ko waxee ay njiit ak yooyu yëpp dañ leen di yëgal fii daal lañ doon def lépp fii la ñuy jël seen décision yi fii lañ daan def lépp ba yàlla def comme ni mu ko waxee eh, ki mi jël nguur gi ni mu jëlee nguur gi aussi comme ni ñu ko waxee rek wax nañ ko noonu la jëlee nguur gi mais ci biir benn famille la rek parce que xëy na même su fekkente ne réewu leen tamit bu ram bi accès ci moom xëy na dafa yàkkamte mais comme famille boobu la bokk famille buur yi yooyu la parce que ba tey ba suba euh, am na kër yi fii mooy kër buur bi mooy kër yooyu la ñuy tuddee Mansakunda <coughs> kër yooyu ba léegi ñu ngi taxaw famille yooyu ñu ngi fi famille yooyu ñoo continuer di di di di nekk chef de village di nekk njiitu di nekk leneen ak leneen ak leneen. Ah, waaw li ñuy laaj léegi ñaari buur yi dañu ne Mansa Mansa Kuma moo njëkk nekk fi buur Mansa Kali topp ci mais ci bi nga xam ne ne moo mujj fii te bokkul ci chef de canton yi muy roi nit ñu ñuul yi nguuru nit ku ñuul kan moo fi mujj. ci jàmm waaw foofu moom Mansa naa mën nañu la jàpp ne Mansa Sara la waaw. salaamaaleykum. Eh, fii sama papa di daanaka daanaka foofu lay commencé président eh, li nga laaj jar na laaj mooy ban ruwaayam mujj ruwaayam mujj mooy. Mansa Kilintaan Mansa Kilintaan boobu Mansa Saara moo ko jur mais xam nga ni da ngay jur doom mu dem nga xamante ne yow yaa ngi yaa ngi am sa pouvoir. mais doom yi nga jur am na ku la war a diggante Massa Kimintan ak Massa Saara seen diggante noonu la fa demee Massa Kimintan nag doomu Massa Saara Massa Saara boobu. moom la wax Massa Jàmbur. waaw mooy mooy mooy papaay Kimintan. waaw ah, mais mais man Kimintan nag moo mujj ci royaume waaw Kimintan Jàmbur fii la juddoo yaayam Kuntuwaat la juddoo Kuntuwaata mooy kër yaayam kër yaayam. loolu moo tax bi mu dàkkee anglais yi bu falee makaati bi mu jëlee seen kii kanu yi mu indaale yenn yi dénkaane ko kër nijaayam yenn yi mu yóbbu ko kër baayam ah, waaye am na xel jàpp na ne am na ay nijaay buuriwul lii ay nijaayam lañ ci nit ñi wax bokk naa ak ñoom kat xeetu yaay kon ñu continuer na li li may laaj mais Maysa Saara da ngeen ne Maysa Saara nekk na chef de canton mais euh, Maysa Kiminta fekkee wut ak chef de canton yi. kon kon ñaari Maysa Saara am. Maysa Kiminta day ñaar Kiminta bi ñuy wax Maysa Kiminta baa moom la ñuy wax ni mais am na Maysa Kiminta beneen boo xamante ne kooku moo jur Alaaji Silli Alaaji Silli moom moo jur Abdou Camara directeur ENAM ak ñoom Mamadou Camara ah. ñoom seen maam. chef de canton la Malam Ñaan fii la mais mais li may kimintaan boobu nag bokkul ah, ak kimintaan bu mag bi. bu mag ñaari kimintaan yooyu yëpp fii la ñuy juddoo. waaw seen tànk lañ dox demul ñu. waaw moom la man sa kimintaan mbaa. waaw man sa kimintaan kan mooy bayam. waaw kimintaan kan mooy bayam. kimintaan mbaa man sa saara mooy seen baay. man sa mais ma may seen jàmb euh, kimintam bi chef de canton fekk na moom génn na jamono. kon dëggoo li nga wax. ñaari ñaar la. waaw na ma ne ñaari ki may si bi nga xam ne moo nekkoon moo sañ ca dugg si. te nekkoon fa buur te xeex ak tubaab yi. waaw kii bayam du may sa saara la walla may sa saara la. waaw non histoire la moom nag comme ni ma la waxee rek. bon ci dégg euh, ci wax la nga fekkee ñu bind loo fekkee nettali ko ñu wax la wala ñu nga fekkee mu bind nga jàng ko waaye noonu noonu lañ ko dégg noonu la non c'est ça c'est bon am amul keneen kuy wax waaw wala ñu arrêté ah, bataar saban c'est bon ah. de man de xaaral man am na li may am na am fu des am fu des leer hakket fende aman timba hakket fende ku wul tamen kam man no man fo ma man timba c'est parce que damaa yaakaar ne affaire bi yëpp ñaani bañ na moo waral bagage moom la ñuy wuti ci ñaani bañ na ku nekk bëgg nga ci moom am dara mais nag bu amee boo xamante ne moom mooy bant bu dee bant la wala jëmm la mun nañ leen wax ne foofu moom njàmbur la amee c'est parce que Alboury Ndiaye bi loolu amee dafa ne dangeen ma leb danaa leen fay bi mu jógee nag mu bugg a ñëw fi yaayam moo ko ne boo jegee doo ñëw looloo waral mu yëm gunjuur bi mu ñëwee gunjuur nag mu bugg a jël jigéen yi fekke góor yëpp ñu mu bugg a jël jigéen yi yóbbu leen def leen ay jaam ñu ne ñu dee léegi léegi yàlla eh, suuf si suturaa leen moo ñu génnan ñu jógee fii dem Jolof nekk jaamu olof duñ ko jaral loolu daanaka loolu moo loolu moo neewal doole ñun loolu moo ko tas dañu jigéen yëpp dañu ah. sànni seen bopp si teen bi ba teen fekkee waa njàmbur yi góor yi ñu ngi ci àll bi mais ñooñu dafa ñoo xamante ne yàlla moo leen may ci pop ñu yëg ne ah? am na lu xew Gunjur ñu jógee fi dem Gunjur dàkk Alboury Ndiaye waaw ñu ñu dàkk ko dem nee na jigéen ñi dañoo ñoom ñëpp dañoo dugg ci teen bu teen bi fees ana teen boobu waaw teen boobu mu ngi gunjur mu gunjur ni nii nii waaw fi mu toll nii tey boo demee gunjur boo laajee lool rek ñoom danañ la yóbbu ba ci teen bi ñu ne la bagage yi fii la amee c'est parce que keroog pôle bi mu ngi koy wax mu ne ba léegi foofu boo fa tolloo yax yi da nga koy gis ba léegi waaw pourquoi j'ai jamais entendu c'est extraordinaire ay ay talaatay ndeer ak yooyu noonu li moo gën a fort voilà sama sama doom bi lu mu la wax c'est que bon affaire bi dafa dese dafa dafa dese parce que ba tey le soir voilà le yi le soir ñun ay xale la ñun da ngay da ngay da ko wax doo ko mën a jeexal

waxtaan naat ak waa dëkk bi ci histoire Niani vraiment liñ fi dégg neex na loo trop mais am na lu des nag nañ xam ne ci commencement lañ ne dañuy gëstu te gëstu du passé et bu ñëwatee am na leneen lu ngeen fàtte da ngeen ñu ko wax te nañ ci gën a gëstu histoire Niani lu am doole parce que fi ñeen fukki buur ak ñaar feeñe nekkatu lu tuuti ñeen fukki buur du caaxaan te comme ko fii la buur njëkk a foloo ci Niani fii la buuru ñaani njëkk a fii la nguur ak ñaani déparé kon fii kenn buñu ta dindi na fii mooy capital bi réew moo am dana am ñu ne buur bi fii la nekkoon beneen buur feeñaan na feneen te bii ne bu am mais nag dana am famu mu central bi mooy jàmm

mbokk yi fii lañ nekkoon doole ji fii la nekkoon parce que xeexkat booy dem ngay yeb boo yeboo da ngay yeb ak say mbokk yeb ak say gir yi yeew say soldat kon fu ne amoon na ay soldat soldat yooyu ñoo ko daan jàpp nga xare bi ñu fa te dëkk boo ci dem am na dara am na secret dëkk boo dem am na jalan jàpp ki ñuy wax loo xam da leen daan jàppale ci seen i mbir da leen daan jàppale ci seen i xeex da leen jàppale ci seen lépp dëkk boo ci dem muy Kuntuwaat muy Njambur diina muy Koupentoum Socé muy Gunjuur muy euh, euh, Kissa muy Ndungu Siin ci boppam donc kon ngeen xam ne bëgguñ nag lenn ñi xaj xaj bu baaxut ci yéen li am fi mo am jolof mo am kadior mo am kadior mo am sin sin benn bour bour sin ne fi nekku fa soo déggee ne buur siin siiw

borom xam-xam lool borom may-may lool ah. te loolu ñëpp nangu nañ ko mm-hmm. mais dafa bëgg ngeen xam ne nag lu ko yàlla mayoon yëpp nag fii la ko jëlee fii la juddoo fii la màggee du sax dafa toog nekk xale fa dafa nekk major yore ay jabar yu mën a samp kër dem sant dund si loolu borom xel ñoom jàpp nañ te mais li ñuy li leen di wax nag am na lu des ci biir na ngeen gën a waxtaanaat parce que histoire kenn du ko profité yàlla baax na xam nañ buur bu njëkk xam na buur bu njëkk mañ sa fi njëkk Mansa Kali topp ci mais Mansa Saara moo fi dugg jur Mansa Kimintan Mansa Kimintan dem sanc dugg si donc loolu xel jàpp nañ te ñu daañu ci jàpp li mel leen di bëgg a yëgal la xëccoo dara baaxut dañu bëgg soo gisee li ñu déglu gëstu histoire Sénégal dañ koy bindaat dugg histoire ñaani bokkaat ci te mu histoire bi gën a riche que kat bu ngeen négliger Kimintan yéen a ngi négliger seen bopp parce que Kimintan def na jaloore yoo xam ne benn buur defut ko ci Sénégal loolu ngeen nag seen doom suñ doom la fii la juddoo fii la màggee su ma yeboo ne suñ maam la fii la juddoo fii la màggee ñun dañ koy kiitaroo def na jalooro yoo xam ne it ñun da reconnaître ne amul benn buuru wolof yi ñuy yuuxu ku ko def parce que moom bete benn tubaab convo amul amul defe mais si ki min taa judd benn mu gaañoo fu mu xeexee victoire la yam jàmbur gi it amul benn buur bu mas a dem am defet daf ko doon na ci ay maamam ñeent fukki buur yi fi ak ñaar yi fi am mu ñu am defet fu ñu xeex dañuy gagné mu judd ci loolu moom it fu mu xeexi gagné kon loolu ndam la amul fu ñu mas sa xeex am defet donc loolu tiitar la ci ñun te tey boo demee Gambie ñu ngi koy tiitaroo te moom fii la dëkk sanc fi nekk falaw fi nekk fi buur yore tataam yi fii yore eh, eh, cosaanoo fii dem nak ba gambi diko magal pourquoi dangu na won dara ci doxu tubaab bi moomale ko ñaan ñoon diko magal màggal ba soo demee seen musée danga fa fekk photo ñu diko euh, magal kon ñun loolu tiital nañu su fekkoon xeex na ne tubaab yi bi nit ñi tubaab français yi konoon tay duñ wax lu mais tubaab français yi ñu ñoo a dugg ñemewuñu woon bur ñaan yi loolu ñëpp xam nañ kon euh, ñu ngi sante yalla di len gërëm di sante wa dëkk merci